mujjantale muy jàngkat di woy woykat Cheikh Boucar nag moom leen wax na ko mu defal ñu benn muxaadara boo xam ne dafay nekk silsila ci càlla la ci waxtaan wi nga xam ne moo jiitu woon mooy tariqati tijaaniya ci la oustaz Aliou Ndaw wax ci cosaanam yéen ñëpp déglu ngeen Euh, allaama boobu lan la ci wax ci ay atteem tamit junj na ci tamit lu bari waaye wirdu tijaan boobu nga xam ne oustaz mu ngi ci doon wax wirdu tijaan dafa am meññet dafa am dégg nga njëriñ njëriñ loolu nag tey Cheikh Ahmed Boucar ci lay waxtaanee mu ñu tànnal ko mawdu boo xam ne mu ngi dugg rek ci laay ji yàlla wax ne was euh, wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bilgadaati wal ashi yuriduna wajha yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muñaale di toogaaleeg ñi nga xam ne dañuy tudd seen borom suba ak ngoon te xam nga ne tijaani ñoom boo seetee seen xaal di nga gis ne laay jooju ñoom dëggal leen ko ci seen xaal ci wirde lazim ya waaye tamit ci wasifa ba loolu nag muy waxtaanee nag wirdo yooyu ñuy wirdo ñun bët bu set ana lan la mën a jeexital ci nit tem bu am solo bugg naa ñëpp nag déglu bu baax a baax li nga xam ne moom la ci Cheikh Boucar wax ndax dañoo jox koo xam ne euh, mënee na thème bi lool dinaa ci ñëw ci tëj bi léegi euh, mooy alwirdu tijaani dawaaun li adwaa il qulubi wal gaflati wirdu tijaan dafa nekk wala nga ne alwirdu tijaan yi dégg nga triyaaqun maanaam euh, garab la wala nga ne lugg la boo xam ne dafay lugg feebari xol yi waaye ak sàggane yàlla tabaaraka wa taala feebari xol yi dina ci ñëw sàggane yàlla tabaaraka wa la muy yóbbul jaam bi tamit dina ci ñëw waaye la gën a gaaw ci saafara ko mooy médicament boo xam ne lu mu tudd mooy alwirdu tijaan yi kon Cheikh Bukaar ci loolu lay wax kon jox neen koo xam ne euh, lii arab yi di wax aatil xawsa baariha wa askini daara baaniha na nga jox xala bi ki nga xam ne moo ko yet waaye kër ga ka ko tabax jox ko ndax ka ko tabax moo gën a xam kër ga moo gën a xam ruqa ruq-ruqaan ya kon Cheikh Boucar ñu ngi lay jox nga waxtaan ci euh, école bu mag boobu nga waxtaan ci euh, géej gu mag googu euh, ndax ndem sax mën nañ ko tuddee géej nga xam ne ku ci dugg rek feebar yooyu dina wu ci nga dëkk ci yow ndax waxoon nga ko na ko شيخي أبا العباس جئتك زائرا من كولخ أسبو لمربع فاسي من كولخ دار الخليل قصدتكم وشوق يستولي علي أنفاسي حتى أنخت ببابكم يا سيدي يا قبلة النبهاء والأكياس yaa ko wax na ko ba nga koy ziyaare 2021 ndax ca zaawee ba nga toor yóbbu yónnee ma xasida bi waaw bu maa ngi koy denc dama koy jàng lu bëri nga ne ko yow sama sëriñ abal abbas si dikkal naa la ca kawlax di la ziyaara maanaam mën nga ko wax rek na ko dikkal naa la di la ziyaara waaye xam nga ne albaabu mooy sa maam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu waa kawlax gi nga xam ne mooy daaral xaliil kër ak soppe ba di Cheikh Ibrahima foofu laa la jubloowee te mbooleem nag xeeti mbëggeel yi ma nga contrôler samay nokki xataa mënuma dégg nga nokki mënumaa xool mënumaa gis lu may mbëggal googu mooy li nga xam ne moo ma moo ma ommat ba ma ñëw yësal yëslu ci sa buntu yow sama sang Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane yow mi nga xam ne mbooleem ñu baax ñi mbooleem ñu ñaw ñi mbooleem ñu am xel ñi yow yaay dégg seen seen xibla kon kooku nga dikkaloon moom leen bëgg dañ ko dikkalee lam la tuur ci ay yëg-yëg ak i anwaar nga tuur ko mbooloo mi kon xul waxu ruuxal xursi maaka wasalaamualeykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokki ronu tànt bi ci buntu kër suñu baay suñu sëriñ Mawlana Cheikh Hassan ci ngoon gu tedd gu barkeel gi ci guddi gu rëy gu màgg gi guddi gu bari leer gi guddi gu bari yiw gi di leen ziyaara di ndokkeel ci guddi gi di leen wàcce seen wàccuwaay di tàmbalee nag suñu nuyoo ak suñu ziyaar ak suñu al xalifa cheikh Mouhamadul Kabir yal yàlla yàggal ko fi te wattu ko dëgëral ko te may ko wér buñ ko nuyoo nuyu ci wetam suñu rafiqu darb suñu jarbaat suñu mag suñu xarit suñu soppee soppe Cheikh Mouhamadul ñu yow suñu rafiqu darb suñu soppe suñu xarit suñu wéttal ci yàlla ak ci xam-xam di Seyd Cheikh Abdoul Baqi naatiq rasmi bismil usra alxasaniya nuyu Cheikh Omar seen rak fàttewuñu suñu soppe Seydi Aliyin as Safir saadatu Safir la yàlla wattu ko fa mu nekk dimbale ko ci mission am nuyu itam ziyaar ndokkeel suñu yaay ci kër gi suñu yaayi daara xam ne yàgg na wuuf fii ci daara ji eh, yàgg ñee taxaw ci keppaaru góor gi tedd googu di mën a Cheikh Hassan Deme ridwanullahi ci njiital Seyda Ndey Ami na ko fi yàlla yàggal dëgëral ko ak suñu yaay Fat njaay ak mbooleem soxna yi di nuyu muqaddam yi ci aju ci kër gi xam naa buñ ci tuddee ku mel ni Cheikh Dramé suñu magu daara ah, nga xam ne mën nañoo wax ne magu muqaddam yi la tey koo xam ne ku ko xool rek fàttaliku démb fàttaliku góor gu tedd ga nuyu Oustaz Ali Ndaw rek mel na ni nuyu nañ muqaddam yëpp ci tënk di nuyu itam euh, soxna Faat Dem suñu mag waaye di suñu yaay moom it di ko ziyaara di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla wér nuyu mbokki taalibe yi nuyu soppe yi nuyu xarit yi ak wóllëre yi yëpp ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi di sant yàlla bu baax bi ñu yàlla mayee ñu dellusiwaat ci keppaaru suñu bàyyi suñu sëriñ Mawlana Cheikh Hassane Dème ci guddi gu tedd gu màgg gu rëy gii nga xam ne keppaaru Mawlana Cerno Cheikh baax Baqi wax na ko léegi ñun ci lañ yaru yàgg nañoo ñëw ci kër gi di taataan ci di fekk góor gi mu fees dell ak mbëggeel fees dell ak bëgg Cheikh na Tijaan yi fees dell ak xam-xam fees dell ak njub fees dell ak leer te tabe ci joxe li nga xam ne moom la feese woon yàlla sutura dimbale ñi dafa nit fiix ñu bokk ci ñi nga xam ne taataan moom bëree bëree bëri yàlla ñu ko yàlla fayal yiw kon bu ñëwee fii tey dañuy wax ne ñëw nañ fu ñu miin waaye ñëw nañu tamit foo xam ne suñ kër la suñu daara la euh, du ma guddal ci loolu damay bëgg a ñëw direk ci thème bi thème bi ni ko suñ mbokk Cheikh Baax yi introduire mooy al awraad tijaaniya tiryaqun li adwaa il quluubi li adwaa'i alxaflati wa zunubi bi maanaa awraadi yi nga Cheikh yi ni ko Cheikh baax yi waxee la dafa nekk di loo xam ne dafay saafa nga xam ne mooy waral fàtte yàlla ak sàggane tudd yàlla ak Eh, jegeñ ko di tamit tàggale nit ki ak ay bakkaaram te bakkaar yi mbokk yi xam ngeen ne mooy waral tënku tënku yi nga xam ne mooy tënk nit ki ba du mën a dox ni mu bëgg a doxee ci wàllu yàlla ba dama bëggoon rek lan barab daw subaa ngoon di ko wutali ngir naan naan fa ngir naan ak nàndal seeni jur seeni jur loolu mooy cosaanu baatu eh, wirdu wirdu loolu moo doon cosaani baat bi barab boo itiyaanul maay walla nga ne mooy nit kuy daw subaa ngoon di wutali barab boo xam ne ndox la fay wuti wu ko nàndal alxuraan indi na ko fa arsalu waaridahum fa adlay dalwahu ca suratu yusufa dañoo yónni woo ndaw ngir mu utali leen ndox waaye nag ci wàllu istilaax te bu ñu ma waxee ci wàllu istilaax mooy ci fànn gi ñu nekk ñun ci waxi ni ñooñ tasawuf ci jubluwaay ñooñ tariqa bi ci awraat mooy moom awraat mu ngi firi mulaazamatul awraat azkaari wa qiraatul quraani taqoo ay dog ci jàngaa moo xam ci jàngal quraan moo xam ci tudd yàlla ak balu ko ak ñaan ko loolu nga koy taqoo suba ngoon loolu mooy awraat ci wàllu waxinu gaa ay maanaa mu njëkk ma ak maanaa mi te benn maanaa la mooy dafa fekk ne jëmmi doomi aadama mënta dund sans mu jëfandikoo ndox dafa dafa aajowoo aajowoo bu dappetu naan ak setal sax ay tilim tilimam ci ndox ni jëmmu doomu aadama nag aajowoo ndox mu ko dundal saafaraal ko aw maram setalal ko aw yaramam ak barabam ak yéreem noonu la ruuxam aajowoo moom it na di aajowoo moom it lu naan te moom du naan ndox waaye li muy naan mooy tudd yàlla li muy naan mooy sikkar ak tudd yàlla ak jàng alxuraan loolu mooy li nandal jëm moo tax ñaari baat yi nga gis xaat ne am na euh, lu ñu niroole lu bari am na lu ñu bokk bu ko defee nag aslu boobu ma wax nga xam ne mooy aslul wirdi luxatan wastilaaxan maanaam ci wàllu làngu arab ak ci waxinu gaa yi rot na ci xadiis sayyidina Ubaada ibnu Saamit mooy wax ne wa sallam wax na ne man kaana lahu wirdun min salaatin aw safarin fa manaahu min salaatin aw فمنعه سفر aw maradon kaana lahu l ajru taaman yonent bi saa sallam ne képp koo xam ne dangaa amoon dog boo baaxoo ci julli ay naafila yooyu julli la wala koor la tukki nga am ngànt tukki ba mënoo koo def walla ngantal feebar nee na yool ba dañ la koy bindal nga gis ne liggéeyal yàlla perte amu ci Eh, pour bañ a guddal ci xadis yi ko rotal yi rotal yi nga xam ne indi nañ baat bi ma jàll rek ci li nga xam ne mooy aslu talqinil awraat di taqoo ab dog ci tudd yàlla am na cosaan lool am na cëslaay ci diine yàgg na yàgg na fi loolu loo xam ne tariqa tijaan moo ko fi indi boo demee ci téere Mawlana Cheikh Ibrahim Kashful Albas da nga fekk mu def aslu talqinil adkaar def ko muy benn def ci benn chapitre boo xam ne yaatal na ci radiallahu taala anhu yaatal gu rëy rëy may wax ne cosaan bi mooy jàpp kóllëre ak yàlla waaye kóllëre googu danga koy jaaree ci waayu yàlla boo xam ne dafa am kóllëre gu wér wér wér wér ak boroomam ndax jàpp wérdo ci sëriñ jàpp kóllëre rek la te alxuraan moo ne ñi dañoo war di fas kóllëre ak yàlla te kenn mënta fas kóllëre ak yàlla te jaaroo ci waayu yàlla fas ak moom kóllëre eh, moo te kóllëre googu boo ko xasee ba fas yàlla daf laa digal nga sàmm ko yaa ayyuhal ladiina aamanuu awfuu bil uquud rijalun sadaqu ma ahadullah alay fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila loolu yépp yàllaa ngi ciy digle sàmm kóllëre ci aaya boobu bu njëkk bi aaya bu mujj bi mu ngi ciy digle li nga xam ne mooy euh, di tagg ñi nga xam ne dañ bu ñu fasee kóllëre ak yàlla jaaree ko ci waayam dañ koy sàmm te loolu rek ngay fekk tariqa bi di la digal pour nga sàmm kóllëre gi nga xam ne moo la takkee ak tariqa bi te moo la takkee ak sa borom cosaanu nag jaayante mooy bay al islaamiya yonentu saxaaba yi doon jaayante ak yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam alquran di ko yu junju inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim ñi nga xam ne teg tegante nañoo ak yow yonentu bi sallallahu alayhi wa loxo yàlla nee na ko ñooñu tegante nañoo yàlla loxo nga dégg ne waayu yàlla boo teganteeg moom loxo rek di fas ak moom kóllëre ci yàlla da ngaa mel da ngaa tege nga booba nga tegee tega tegeeg yàlla loxo yonent bi nee na man lam yamut taxta bayatin maata mitatan jahiliya képp koo xam ne dund nga ba faatu te fasoo kóllëreeg benn waayu yàlla ci yàlla yàlla ci loolu jaayante nit yàlla yi mosuñoo dëñ di jàpp ay kóllëre Seydina Ali yin boo demee ci Kaashiful baas téere boobu nga xam ne kashafa kulla la bépp lënt lënt rek ñu ne ko muy téere boobu Mawlana Cheikh bind la ca gën a mooy boo demee ca tësil ba sax dafa mel ni moo gën a yéemeeti nga gis tuulu nafas bi bàyyi am fil istidlaal maanaam ni mu jekkoo texte yi alxuraan ak sunna raat ci xadis ba bëgguma guddal Seydina Ali bin Abi Taalibin ba nga xamee ne ñëw na ci yonent salaa salaam di ko wax ne ko jox maloo xam ne dina ma jëriñ ci wàllu yàlla mu jox ko laa ilaaha illallaah waaye na mu ko sayee ci gàttal daf ne ko gëmmal wax baat bi ñetti yoon kon kay ndeke euh, sa nit tudd turi yàlla jox ko ndigal ci mu sikkar ko lu am cosaan la ci diine léegi nag wirdo lu ko tax a jóg dafay yewenal zaahiru ja nit ki maanaam ki koy sikkar kiy sikkar kiy jëfandikoo wirdo yi dafay waajal baatinam ba mën Eh, taataan waari daati rabbaaniya yi bàyyeekoo ci péeb yàlla bi te waarit buñ ko waxee mooy li nga xam ne dafay rotee ci pays bi jëm ci baatini jaam bi ci ay lataayif ak i anwaar ak i maarif xam-xam yu sew ak leer ak ay dégg-dégg yu sori yoo xam ne yàlla moo koy sànni ci xolu jaam boo xam ne dafa dëkkee sikkar kon sikar moo lay waajal waajal sa xol ba mën a taataan lay bàyyeekoo ci pay bi nit yàlla yi dañuy wax ne man istaadda istamadda képp ku sa waajaay ci ba waajal sa xol waajal sa baatin rekk ñu tëbb la waaye boo waajalul sa baatin waajaloo sa xol deesu la tëbb dara ida hayyaaka lil istidaad faqad fataxa laka baabal istimdaad loolu la gaa yi yàlla yi wax bu la yàlla waajalee ci sikkar rekk xamal ne namm na la sotti leer ya ak mbóot ya ak xam-xam ya kon mbokk yi wirdo am na solo moo tax ibnu ataayillah wax ci xikam ne eh, taatil waaridaat ala qad ala qadril awraat taatil waaridaat kem rek ni sa wird tollu ak na mu sellee noona la ma dama ko seeti benn bés ca këram dama daan fréquenté mag ñu baax ñi ma ñëw fekk mu ngi ci xaal bu rëy di woote naan ana laamin ana laamin amadi bukaar ool ma laamin ma oo laamin laamin ñëw mu ne jël leen këyit ak bi bind lii yàlla sànni ci sama xol bi balaa mu ma ricc laamin indi kayit ak bi muy tuuru rekk araab yu yéeme wax yu yéeme ba ñaan nga jeex mu ne waaw loolu mu doon lakk xol bi su ma ko génnewutoon du ma am jàmm a ah, man ci sama sob ma jege ko ne ko góor gi mu ne ma ma ne ko waaw ku bëgg a am waarit nooy def nag mu ne ma ñàkk ko yittewoo ñàkk ko yittewoo rek doom ah man booba mënumaa dégg seeni wax ma ne daal góor mag ñi daal dañoo mën a nëbbu xam naa daal yéene wu ma am am waarit booba man noonu rek laa déggee damaa dégg na daal ma dàq rek waaye bi ma doxee tuuti tey xam naa ne la ma wax mooy li am ndax du sa wàll yow yow li sa wàll mooy toppatool say azkar toppatool sa digganteeg sa borom sellal ko defal li la war pay bi def li ko war loolu la ma doon wax duwanullahi alayhi ulaayika abai fa jini bi mislihim laa jamaat na yaa ma majaamew awraat di luy sellal xol bu fekkee ne nag mbokk yi awraat dafa baax ci jamono bu nekk xanaa kon raw na rawatina jamono ji nga xam ne mooy zamanul xaflati anillah nga xam ne léegi bàkkaar yi dafa mel ni luy taw mu mel ni sàggane yàlla ak wan ko gannaaw jamono ji la gën a tar kon yaakaar naa tey lañu gën a soxla awraat rawatina nag bu dee awraad yi awraad et la dinaa ci ñëw ci awraad et léegi na cheikh jot ko ci xasru abi samxuun 1196 ci hijriya bi léegi ñu ngi ci 1446 kon jar bu nañ ko deux siècles et demi mu wér def résultat yoo xam ne benn tariqa mosu koo def euh, awraadi tijaaniya bi ñu tax a jóg nag mooy ar ar daanaka bàyyi ko du la yàqal tariqa bi laazim ñu koy tuddee al wirdul asli ndax moom la moo njëkk a wàcc si ne cheikh ci ni nar a feeñee ci kanam wadifa bi gannaaw ga ñu mottalil ko laazim euh, ñu jox ko ko istixfaar teg ca salaatu ala teg ca salaatu ala nabi ca bopp siècle ba ba matee maanaam sallallahu alayhi wa mottalil ko xëy la muy laa ilaaha illallaah sanadu awraadi tijaaniya mat naa wax mooy cëslaayam cëslaayam ci alxuraan mu ngi ne fàng ne dàng leer aaya bi Cheikh baax Baqi wax léegi ci la ak yeneen i aaya yu dul jeex ak xadiis yu dul jeex yoo xam ne day wane ne balu yàlla ak tudd ko ak bëri looy julli ci yonentam bi loolu moom alxuraan santaane na ko ba tey xadiis noonu waaye fan la si ne cheikh jëlee wirdo wi ndax ci loolu rek cës la alxuraan wa rek la la ko jëlee dem jëlee ci alxuraan comme borom xam-xam bu dugg ci alxuraan rek taataan sa dégg-dégg indil ko nit ñi déedéet si ne cheikh radiallahu anhu borom guddi gi dafa sonn ci ut yàlla fu mu dégg ku am dara ci yàlla dem na fa gannaaw bu mu jàngee ba fees dell ak xam-xam wattu alxuraan ci juróom-ñaari at wër na ni ko ibnu baabal alawi waxee zumma artaqat himmatuhu alaliya ila itibaaci saadati suufiya fa jaala fi talabiha lillahi aadati kulli aabidin awaahi itteem ju kawe ju rëy jooju noonu di dégg di ko puus rek muy wër penkook xarfu di wut ba mu wëree ba sonn Mawlana Cheikh Ibrahima a ngi koy wax qad jaala fi rawmi almaarifi jaahidan walaa qaahu aqtaabun mashaayixu kummalu ca abarqun bada am waju aïcha muqbilu nee na wër na ci sàkku ñooñ yàlla yi ngir jàpp ci ñoom waaye nim ko waxee moom si na ci waxam ne waqad axadnaa ala mashaayixa idda fa lam yaqdi llahu bi taxsili lmatlub wa innama sanaduna fi hadihi tariqati wa ustaaduna naa wa ustaaduna fi hadi tariqati huwa sayyidul wujudi sallallahu wa sallam fa mu ne fa laysa li gayrihi min ashuyuuxi fii naa tasarufun mu ne jàpp naa ci gaayu yàlla yu bari dugg naa ci tariqa yu bëri waaye li ma bëgg dëgg-dëgg ci yàlla ameewu ko lu may ci sama maam sallallahu alayhi wa mooy sama sëriñ mooy sama ustaad mooy sama cëslaay ci tariqa bi ak wirdo yi nga xam ne moom laa jox jaami yàlla yi maamam moo ko feeñu ci abi sam ruun gannaaw bu mu wëree ba sonn ne ko da kulla shuyuuxika wa dar ana murabbika wa cheikhuka al abar bàyyil mbooleem sëriñ si bés ni ki tey man sa maam may sa sëriñ maay sa oustaz maa lay tarbiya daldi ko jox wirdo yi te foofu njàng mu rëy a nga fa si na cheikh radiallahu anhu jàngale na na kuy ut yàlla doo tayal waykat bi nee na wolofalkat bi kuy ut yàlla boo tayalee sag am ko wóorul te doo roy cheikhu tijaani ku yóot yàlla doo tayal si na Cheikh tayalu toon lu ne daj na ko ci gàttal waaye tamit am na sax ñum daje ku mel ni Tayyib Sidi Mouhamed ibnu Tayyib al-Wazani mu wax ko ne ko eh, jox naa la ndigal nga nekk sëriñ waaye su ne Cheikh dafa bañ ñu bari ci ñim daje bégal nañ ko bégal yu rëy ne ko yow fees nga demal nga joxe waaye déedéet taxul mu kaalawu nekk sëriñ loolu sama classe gu yàkkamtee nekk sëriñ bi war nañ koo dégg ndax xam ne yàkkamti am fetxu yàkkamtee euh, tasaddur mooy gongeeku pour yare léeg-léeg mu tere laa yegg fa nga jëm benn mag nee na ma woon ma ne ko ñaanal ma fetxu mu ne ma ko góorlu ci jaamu dafa am xabul lool booba ku gis rek bëgg ko nit ñi daw utal ko dégg nga ko moom la bi baaba di wax na fa kaana yuftatalu min mar'aahu li xusnihi jamiu man ra'aahu fa aqbala annaasu alayhi wa zajar wa shaddada alfiraara anhum wa nafar nit ñi daw utal si ko mu daw moom nit ñi di utali di sayroom ak doxam ci yàlla loolu njàng mu njàngale mu la boo xam ne mën nañ koo jàngee ci moom ba maamam xëy ne ko ni ko Mawlana Cheikh Ibrahim di waxe waqad taraka al awraada turan bi asriha bi idni rasulillahi wa huwa al mukammilu wax ca lamziye ba moom bàyyi ne qaala taha lil gayri lam yabqa mannun gayra anni ala ala eedaya alxibaaw Cheikh na Tijaani ba yoon maamam feeñu ko nekkoon léegi amatul kenn ku la mën a ñaax ci sëriñ si bés ni ki tey man sa maam may sa sëriñ maa lay jox may yi direct sans intermédiaire léegi nag yonentu feeñu ko jox ko awraat yi ñuy waxtaanee yaqazatan laa man ci lu nelaw liggéey yi bañ a dégg boo waxee ñu ne loolu ndax mën naa nekk si yonent bi mënta nekk si ne cheikh radiallahu anhu laaj nañ ko ne ko ndax xibaaru yonent bi sallallahu alayhi wa tey gannaaw bu mu génnee àddina ndax mën nañ cee jàpp comme bu fekkoon danga ngaa moom ba muy dund mu wax la dara si na cheikh ne waaw waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi bi mu fi nekkee di dund da doon jottali nit ñi al amr al aam muy lii ñëpp bokk muy sharia bi nga xamee ne nag génn na àddina dañoo lem si na ay wax mu ne tuuye bi saatu dalika bi mawti salaa nga xam ne mooy al amrul aam mbiri sharia dootu dooleeku yow ma ak matulu al yow ma ak matulukum diinakum diine mat na kenn mënatu ca yokku dara waaye mu des amrul xaas muy wàllu baatin loolu nag mu ne yonentu bi salaa mu ngi continuer di ko joxe ba ngoon ak tey gi ci li seen na cheikh ba pencam yàlla te du dagg mukk ndax yonentu bi salaa sallam dafa am ñu kan su dof rek yaakaar ne bi ne mbiram jeex na bi mu fi jógee ci jëmm waaye ñooñu du ñoo amul sëriñ moo tax ñuy wax loolu waaye yonentab yàlla du fàddu yàlla ndawam du fàddu ndax yàlla waxtu bu nekk risaalaam mu ngi continuer war a continuer ci nit ñi ndax du bàyyi mindee fi nag ñuy sànku mbaaxam ak yërmandeem ëpp na loolu rasulullahi la yaxiibu lenn rasulullahi fi kulli waxtin wa fi kulli sha'nin kooku mënta fàddu dañoo rek desee dégg te moom mos na ñàkk a nekk yónent te du dëj mukk di ko doon mu masiran bi rasulillahi min ba'di ismu ahmadu ba ko yonent yàlla isaa di tuddee rasul booba gane mu bashiran bi rajulin yaati sayakunu rasulan waxu leen bégalee góor goo xam ne dafay waajoo xam ne dafay xal si nekk yónent déedéet rasul la nekk na rasul moo tax laa Cheikh Ibrahim ci jàngaleem yu jege yi te sori nee rasulun min al wa aadamu lam yakun wa yabqa rasulan daiman wa muazzama wa aadamu lam yakun ba muy nekk yonentu musta ñàkkadoo yonentu te du ko musa ñàkkadoo gars yi dañoo déggul rek ñu naan yonentu bi ndax mu ngi fi ba léegi ndax war naa mën a jox ndax xibaar koo xam ne dem naa masaakiin da nga leen di sax yërëm loolu duñ ci sax gudd ndax ñun amuñ seen jot parce que ku tardé booy toppatoo mbiram sax dangay ngay faf tardé yow te ñun amuñ jot googu ñun ñu ànd ak Sine Cheikh ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahima eh, kon maama ma ko jox yaqazatan loolu mooy li am muy awraad yoo xam ne seen xasaayis ci laa bëgg a ñëw wirdo yi bari nañ wirdo wàllu yi wirdu tijaan yi dafa xasaayis mooy ay jag yoo xam ne doo ko fekk ci benn wirdo bokk na ci jagle yi wirdun muhammad yi la mooy wirdu yonent bi sallallahu alayhi wa la moo ko tartiibal sinna cheikh ci loxoom yu tedd ya moo tax awraat yi ñëw nekk fi ñëw fi nekk fi nasaqin mu tasaqin mu tasiqin nekk loo xam ne ni mu ràbbaloo ni ko ràbbalee dafa yéeme nim mu sakkanee te jàppandi dafa yéeme dëppoo geeg alquran dafa yéeme moo tax Mawlana Cheikh Hassan Deme ridwanullahi alayhi boo demee ci téereem boobu di tey Taysiru Rusul dafa wax ci tey Taysiru Rusul ne awraad yi miftaaxul usul nga xam ne mu ngi ciy charx manzumat ibnu baaba al alawi Muhammad Baal ibnu baaba nga xam ne mook borom Munyatul Murid di ibnu Baaba Alawi ak Mouhamad Fall ibnu Baaba mii wéy wéy yi Mawlana Cheikh Hassan Dem Chara euh, ci téere boobu lu suul ñoo bokk benn baay seen baay jeexoon ci Cheikh na Tijaani tàkk bu tuddee ko ak ñetti doomam kee yàlla ubbi ko muy ibnu Baaba borom Munya ci zaahiru tariqati mu ci bind Mouhamad Fall moom bind ci baatinu tariqati téere bi mu bind ci baatunu tariqati mu xóot lool moom la Mawlana Cheikh Issa Diagne jàpp firi ko prix mu yéeme mu ànd ak zawqu lool ndax moom kaana zawqiyan ku yàlla mayoon adwaar la yu yéeme aarif billahi bu mag la noonu laa daan dégg Mawlana Cheikh euh, Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop du ko tudd mukk te waxu daan aarif billahi kabir Cheikh Issa Diagne dégg naa mu ne borom kishful hijaab bu xamoon Cheikh Issa Diagne bu ko fekkoon ci kaw jamono na ko ci asxaabu cheikh yi nga xam ne dajee nañoo te téere ba wax na dëgg parce que amul sikk ne Cerno Musa tàggoog Cheikh ridwaanullaahi alayhi Cerno dafa wax ne ci téere boobu ne lu du tijaan mooy mu laxas la li kullil maarifi mu laxas synthèse la ci mbooleem wirdo yi ak xaqaayiq yi ak maarif yi nga xam ne moom la subiyanke yi mus di wax ak xam-xam yi lislaam ëmb mu ne si wirdu tijaan moom la nekk ñëw def ko sa eh, nekk synthèse bi ndax mu ne waxi aarif yëpp ak lislaam yëpp ak tawxiid yëpp boo ko seggee setantal ko dangay fekk muy wax ci tawxiidul afaal ak tawxiidul asmaai wa sifaat ak tawxiidu zaat mu ne tawxiidul afaal mooy istixfaar al istixfaaru yu jubbu maa qablahu boo ne astaxfirullah rek tàggaliko dégg euh, dafa mel ni si meeku nga ci lépp lu doon dox sa diggante ak yàlla ni nga xamee lislaam ya jubbu maa qablahu kon l' mooy lislaam mooy tawxidul afaal nga ne sala nga julli ci yonent bi salaatu ala nabi mu ne mooy tawxidul asmaai wa sifaat mooy bu la neexee daayiratul imaan dugg nga ci daayiratul imaan lépp luy daayiratul imaan la fa nekk dugg na ci salaatu ala nabi ndax yonent bi salaa salaam mooy imaan laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waalidihi waladihi ba mu jeex yeneen xadis yëpp sa ngëm yàlla du mat mukk te bëggoo ko te julli ci moom ku koy def mooy danga nga koo bëgg kon daayiratul imaan salaatu annabi yóbbaale na ko nga ñëw ci daaira bu mujj bi muy daayiratul ihsaan cerno nee na mooy tawxiidu zaati nga fekk ne laa ilaha illallah mooy tëjëlli def nga tax taxalli ci istixfaar def taxalli ci salaatu annabi nga ñëw ci tëjëlli muy laa ilaha illallah daayiratul imaan ihsaan yi mu ne tari mu ne tariq mu ne wirdu tijaani mu laxas la résumé la ci lépp loo xam ne mooy al maarif xam-xami maarifa yi nga ñëw ci laazim nga fekk ne moom danga koy def yow taalibe bi beru di ko def di noppi tamit boo koy def di ko wax ci suuf doo ko wax ci kaw loolu di lan di alxalwa nga fekk wadifa ak dikru aslu jumaati muy loo xam ne da koy def ci biir mbooloo loolu di lan di al jalwa kon wirdu tijaan yi jamaa bayn al xalwati wal jalwati ah wirdu wu yéeme la ci léppam boo demee sax dangay gis ne li ñuy wax wirdu laazim moo taxaw taxawaaye mboolem nawaafil yi ci lislaam waaye wadifa moo taxawee taxawaayu salawaatul xamsi ndax salawaatul xamsi alaama la mooy alaamatul islaam salawaatul xam si mooy alaamatul islaam taxutoon ak moom kenn du gis lislaam mu jëmmu nii julli di di ko jëmmal waxtu bu nekk ñuy nodd ci jumaa ja ñëpp di dégg nit ñi di jaabante jëm ci jumaa ja ñëpp di leen gis kon shiaar la waaye wadifa yi noonu la taxawee shiaarul wadifati tariqati mooy wadifa ni nga xamee ne shiaarul islaam yi mooy salawaatul xams ak zikru jumaati it shiaarul wadifa tariqati la léppam dafa dëppoo ak lislaam moom tariqa bi boo demee ci wàllu waxtu Cheikh baax Bakhi wax na ko léegi ñu ngeen tur sikar suba sikar ngoon loolu kay alxuraan a ko digle wasbir nafsaka maa alladina yaduuna rabbahum bil gadaati wal ashi yuriduna waja dawal sa bopp ànd ak ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla suba ak ngoon ngir bëgg a àgg ci jëmmam suba ak ngoon loolu alxuraan la te melo woowu Cheikh Abdou Bakhi wax na ko léegi te muy lu wér aaye bi dafay dirisee mbaanam ci tijaan yi ndax tey doo gis ñenn ñu aaye ji mat sëkk mbubb bu doon mbubb la ñum jot sëkk manquut manqué wut ëpput lu may tijaan yi wasf bi yàlla mel la woon aw la suufati wa wasf alladi adbatahu llahu tabaraka wa taala suufati wasf boobu tey laayan doo ko fekk mu mu ñenn mel la woo ko ñu dul tijaan yi alhamdulilahi rabbil alamin kon nu soo si bëgguñ cee gudd am na xadis bu fi nekk boo xam ne bu ma ko jàngoon ñépp yéemu ci nim tariqa bi rek la ci yonent bi jàngale waaye dama koy lem ndax bëgguma eh, gën a guddal boo ko xoolee dajee tamit di sikkar bëggoon naa cee ñëw lu am cosaan la ndax booy sikkar ci mbooloo ma dafay gën a yokk xuduur bi dafay gën a yokk mëdët bi kon wirdo tijaana ngoog wirdo la woo xam ne boo ko seetee ahlan bi saydi sharif al munif marhaban marhaban saydi tijaani waa borom guddi gi ñëw si sëtu borom guddi gi moo yegg si noonu di turandoom di sëti Mawlana Cheikh Ibrahim moom paaka ñaari boor la tey moom Eh, suñu mbir yëpp yewen na incha allah eh, marhaban bi Cherif marhaban nawarta nawartana zaarana cheikhu wa zaarana alhabibu sallallahu alayhi wa sallam wa zaarana cheikh Ibrahim marhaban wirdo wi ci tënk rek léppam alxuraan la dafa dëppoo alxuraan léppam dafa dëppoo ak sunna léppam dafa nekk wirdu woo xam ne lu mën a jëriñee xol ni moom kenn mësu koo gis te kenn du ko gis ah wirdu wu yonent bi salaa salama tëral loo yaakaar ne moom la war a mel li ibrahima rayaax yi wax ca siniyaam bu yéema ba wa ma zunuka bil wirdi alladi nazamat yadu nubuwati hal yubna bila asaasi ah kon hal naa bila asaasi wirde woo xam ne yón loxo bi salaa moo ko tartiib ndax booba wirdo dina mën a ñàkk am fondement ci alxuraan wax ji tontu li mooy ah déedéet fokk mu am fondement ci alxuraan moo tax dafa am fondement dafa am garantie ndax si ne Cheikh ba ko ko maamam joxee daf ne ko bu fekkee ne dinaa nekk baaban li najaati kulli aasin musrifin ala nafsihi nangu naa mooy bu fekkee ne ku jàpp ci man damay nekk danga may def ma nekk bunt ñeel ñi nga xam ne dañoo taq bakkaar ba seen xol tëju seen zahir doy waar seen baatin doy bu fekkee ne ñooñu dinaa mën a naa leen naa mën a nekk buntu ñeel leen pour bu ñuy texee dinaa joxe wirdo yi waaye boo ma garanti loolu du ma ko joxe si na cheikh radiallahu anhu moo yéeme loolu la wax yonentu salaa sallam yonentu salaa sallam garantil ko loolu mu soo ko joxe wirdo bi kon wirdo bi dafa am garanti te ki ko garanti mooy koo xam ne lu mu garanti eh, yàlla garanti na ko mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama léegi ma ñëw tuuti ci fadailul wirdi ndax dañuy kursoog waxtu yi weddo wi dafa bari ay ngëneel dafa bëri ay njëriñ njëriñ kese la ngëneel kese la ibnu baabal ala yi mu ngi wax ne borom manzuma boobu nga xam ne ni ibnu achir manzumatu ibnu achir mel ci malikiya noonu la manzumatu ibnu baaba mel ci tariqa bi ci tijaaniya mu ne axiduhu suknaa wa na jiwaara sayidil waral illiyuuna fii jiwaari sayidil waral musharrafi ku ko jàpp illiyuun ngay dëkk ëllëg aljanna marhaban bi fadilati cheikh illiyuun dëkk illiyuun nag mbokk yi mooy VIP ci aljanna te doo nekk VIP rek waaye dangay ngay dend ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay dëkk ak yonent bi ci aljanna VIP loolu la wirdo bi di maye wa yaxfiru llahu lahu lkabaira min zambihi wa yaxfiru saxaira yàlla dalay lay jéggal say bakkaar yu ndaw jéggale say bakkaar yu mag yu feeñ ak yu nëbb yu njëkk ak yu mujj bu fekkee nag jàpp nga wirdo wi te di ko defee di ko sellal moom la Cheikh Mawlana Cheikh Ibrahim di wax ne tariqun biha tuwafal jaraimu kulluha wa waaliduha fi illiyuuna fi illiyina mu wallaju mu ne tariqa la boo xam ne dafay fóot nit ki ci mbooleem bakkaar yi te mu ne ku ci tàbbi ci tariqa bi ngëpp ci wirdo yi nee na yow aljanna ngay dëkk ëllëg dëkk faak sang bi sallallahu alayhi wa sallam doo ci yem da ngay euh, mucc dugg aljanna sa soxna mucc dugg aljanna say doom say goro bu fekkee ne du ñoo xam ne nii contre nañ cheikh ñoom ñëpp dañuy taxe ci barke téye bi yaa ngi téye yow wirdo wi rek dale sax ñoom téyewuñ ko loolu dara gënu ko rëy te nag lépp alquran a ko wax jannaatu adnin yadxuluunaha wa man salaha min abaihim wa azwaajihim wa zuriyatihim innaka antal azizul hakim ah alquran a wax ne ku baax say njaboot même buñ lay yéesee dañuy ànd ak yow ëllëg dëkk yee ko aljanna ndax nit kii dana dugg ëllëg aljanna ni ko Xasan al Basri waxee gestu gisul ay soppeem mu bëgg tumuranke ci aljanna te aljanna xanaa ku fa tumuranke dootu neex te aljanna dafa wane war a neex nga ne yàlla diw laa gisut mu ne la kooko kat yàlla texewut new fi nga ne man laa tagtamilu lazati illa bi wujudihi ma ay fil janna man kat du ma am mbégte mu mat sama aljaana du neex te sama mbokk moomu ñëw dëkk ak man bu ko defee ñu daal di la ko indil mu dëkk ak yow kon si na cheikh li mu wax yépp dafa taxaw ci alxuraan du dara loo xam ne daf ko wax rek nii ci bànneexu bakkanam bokk na ci njëriñu wirdo yi boo ko jëlee doo li ñuy wax sukuraat fi ngay génnee àddina da ngay tiitaange yooyu di dal nit ñi daw du la dal sukuraat yu métti do tijaan yi xamuñ ko tijaan yi dañ leen taxfifal sukuraat Abdoulaye Waddul Xaaj doy na ci misaal demal ci xisaam bu siiw ba ba muy génn àddina daf ne yonent bi sallallahu alayhi ba muy génn àddina daf ne inna lil mawti la sakaraat waaye man tey ci barkeem man maa ngi wax ne inna lil mawti la nafaxaat ñëw leen ngeen xool ni tijaan yi di dee dee gi yegg na ci sama tànk bi mu ngi ci sama Euh, pooj bi mu sama ndigg li ba ni génn àddina loolu nag buñ ko waxee ñu ne dañoo bëgg wax ne seen gaa yi am nañ lu yonent bi amut déedéet ma ci barkeem la wax tey tamit almasiyatu laa taqtadi al afdaliya ndax sidna omar wax nañ ne mbedd mum aw seytaane daw mbedd mooma te seytaane daan na la jël sang bi salaa sallam di ko feeñu te ci barkeem la am loolu kon nit mën naa am ci barke ku ko gën lu ku ko loo xam ne ku ko gën amu ko si ne cheikh li wax yépp dafa tegu ci yoon moo tax euh, gis nga mag ñi dañuy wax ne njëkk tariqa bi di feeñ fii ci senegal sukuraat yi daan métti lool daanaka gis kuy génn àddina di gas ak tànkam bi ci néegam bi ba mu nekk pax mag ñi nee nañ seetlu nañ ne bi fi tariqa bi tasaaroo yooyu dañ gisatut sukuraat yu métti yooyu tariqa baa ngi noonu tariqa bu léppam nga ne la tariqu mahdil fadli wa ridwaani ussisa bi sunnati wal furqaani ni ko sëriñ bu mag bi waxee Mawlana Cheikh rajo eh, Ibrahima radiyallahu anhu du ma topp fadaa'il yi ndax boo demee ci téere tariqa bi da nga fekk ñu wax lim ci ba trente am nañu lim ba trente te dañ na tuuti lañu indi. kon fadaayilu wirdu bi ak fadaayilu tariqa bi kenn mënu koo wax waaye danaa wax ne am na ci eh, may yi yi si na cheikh wax ne képp koo xam ne dafa jëf ci jëf ju baax tijaan yi danañ ci am lu ko ful lu ëpp téeméeri junne yoon te fekk booba ñoom ba nga koy jëf ñoom tijaan na nga tëdd nelaw loolu may du ko gën a rëy moom la sëñ Hady Touré wax ne daagu leen cim la fem daa di raw gaaya war naaru góor yee dawal aw yeneen xeeti lef bu ngeen bu ñuy daagu ci lefu Cheikh na Tidiane yi radiallahu anhu dañuy raw gaaya nga xam ne ñoom ña nga war ay naari góor di daw li ko waral kiñ ñu ànd ak lépp ci barke ki ànd ak la mu fàttali ma xissaay eh, benn saxaaba Cheikh na Tidiane radiallahu anhu boo xam ne nii nee na dafa nettali ne dafa am benn waaye boo xam ne bokku ci tariqa bi dafa jékki-jékki ñëw ci seen zaawiye ba xam naa di leen kumpasi fanaan ak ñoom ne dafay seetlu tijaan yi lu ñuy dund ñu seen guddi nu muy demee mu gis ne tijaan yi kat biñ jullee gee naafile rek dañoo tëdd ah mu xëy nag di saboté ñii daal foogoon naa ne seen guddi gi dafa extraordinaire waaye ndekk ñoom ak ñëpp a yem dañuy julli rek du julli si baa wëtri rek di nelaw comme ñëpp kon ñii ñuy oote fu ko teg di wax bi mu ko defee wax ji àgg ci sinne cheikh radiallahu anhu mu àddu nag bi mu àddoonee xanaa xamu ne sama taalibe yi ñoom bu ñuy nelaw sax bu ñeneen di liggéey ñoom dañuy am lu ëpp euh, lu ful seen jëf ñoom ñay jëf ñay xoole di jëf lu ëpp téeméeri junne yoon te fekk dañuy nelaw loolu la si na cheikh radiallahu anhu wax lu ko waral ki ñu ànd ak moo tollu noonu xam nga wa fayduha bi xasabil matbuuci laa taabiin maxfuudin aw marfuuci lool la ibnu baaba wax ca charxab ca manzuma bi mawlaana cheikh xasan dem sara mu ne tëbb gi ñuy tëbb taalibe tijaan bi topp dayoob taalibe beeg mbaaxam fu mu tolloo góorgóorlam fu mu toll waaye dañ lay nattal ci sa maqaama sëriñ sa maqaama sëriñ lañ lay nattal fu sa sëriñ yendu nga yendu fa fu fanaan nga fanaan fa ba aljanna walladina amanu wa tabaatuhum zuriyatuhum zuriyatuhum bi imaanin alxaqnaa alxuraan a ko wax kon cheikh lim ni digg yëpp alxuraan la mu fàttali ma xissa boo xam ne bu reelu la abdullahi wulu mu dafa nekkoon fii Medina ci taalibe yi la dend ak benn mbokki naaram boo xam ne maxjuub la du taalibe dafay weddi tariqa bi ñu fanaan ci benn néeg ñoom ñaar Abdoulaye ju liggéeyee Cheikha wétu te di nelaw naar bi fanaan ci alquranam di naafile bi ñu xëyee nag naar bi di ko cokkaas ne ko yow nga indi ma ci sa dëkk sëriñ bii bàññees di wax na yéen aarif ngeen yéen a ñu gën ma foogoon ne bu ma fanaan ak yow ci guddi gi damay gis daal lu yéeme ci ku ku yéeme ci jaamu yàlla yéen li ngeen di oote xanaa ñun ci guddi nu ngeen di dundalee guddi Abdoulaye Mourid fiit mer ne ko gis nga sama nelaw yii moo gën sa naafile yi ngay tere naar bi mer a mer a ñëw songu Mawlana fii ci néegam nettali ko li Abdoulaye Mourid wax bàyyi radiallahu anhu ci waxam yu neex yooyu yëngal loxoom boobu ne ko laa laa laa laa asalaatu xayru mina laa laa laa taqul daalika asalaatu xayru yu neex yooyu nga xam ne yépp ay ishaaraat la parce que waxam ji uute wut ak la si ne Cheikh waxoon bàyyi dafa bëgg a wane ne ñun suñ nelaw salaatu la te asalaatu xayru mina mi jaamuk yàlla ku dul ñun ci maxjuub bi mën naa nekk euh, euh, nelaw ñun suñuy nelaw salaatu la loolu la bàyyi bëgg a wax euh, wax yi waxam ak waxi na si na cheikh wuutewul kon buñ ko toppee njëriñi tariqa bi dafay gudd bi ci gën a rëy rek doy na rek pour ma ma gaaw daaneel waxtaan waa ngi bëgg a yàgg mooy wasifa bii rek dafa doy bët bu sedd rek nga jékki yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ak saxaaba yi loolu rek dafa doy sallallahu alayhi wa sallam sinna cheikh dafa mel ni tawaalana zaman quatorze siècle la ñu lemal ñu ànd di dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni saxaaba yi dundeek moom ñu mel ni duñoo fekkee jamono effectivement dañoo fekkee jamonoom parce que fàdduwuñu benn yoon moo tax waykat bi ne wali fayaafiya laa yajubuha siwa umrin tawilin bi mashaqatin tawa wa cheikhu qad axada bil ashaabi aydihumu fa waqafu bil baabi loolu ibnu ba loolu Mouhamadou wax ca manzumaam ba kon loolu rek dafa doy wadifa moo tax nag fi may tëjee mooy tariqa bi baax na lool gaaw na ci fóot xol lool defar ruuxu taal leeral sa baatin waajal la ba nga mën a taataan waaye nag dafa am ay shuruut shuruut yi jar na di fàttali mbokk yi shuruut yi ci laa bëgg a ñëw dafa bëri nag waaye dama koy tënk dama ciy tudd rek yi nga xam ne dafa garaaw lool te ñu bëri duñ ko bàyyi xel sama classe churut yi daf ci am yoo xam ne day dagg nit boo ko sàgganee tariqa bi danga koy jëlee ci ku xam ne dafa am ndigal lu wér te bari na ku la jox tariqa te amu ci ndigal ndax ñiy joxe taqdiim ñoo war di leeral li ñuy joxe ndax léeg-léeg nga jox nit taqdiim ci ci telqiinul wirdi dikri déedéet ci ci ci dikrul wirdi def ko jox ko ci lijaasa bu fekkee ne muqaddam bu jàngul arab la te firiloo ko la nga ko jox lijaasa mu dem rek di joxe di samp ay muqaddam muqaddam yooyu kuñ jox tariqa bi amoo la jokkoo ci tariqa bi jotoo ak sunna cheikh dara te kon njëriñ yi wirdo bi ña ngi ko jox ñuy buñ ko wirdoo duñu am njëriñ li dinañ am tiyaabo naam waaye duñu am damaanaat yi garantie yonent bi garantie ci tariqa bi ñoom duñ ko am te bu boobaa yaa leen tooñ tooñ si sunna cheikh tooñ tariqa bi da ko muqaddam yëpp bàyyi xel ñuy joxe lijaasa nañ ci def kon man saxa idnan wa tariqu du garar yuxadu bi yadayhi xayduma athar loolu la ibnu baaba wax ibnu muhammad fadl baaba wax n'est-ce pas kon isnu dafa am solo wa sixatul isnaadi ay taayanu wa laysa bi sawaa'i man yulaqinu loolu la ibnu muhammad fadl baaba wax mooy ñiy joxe tariqa bi dañoo war a am ndigal kon jële ko ki nga koy jëlee ci moom na ko xool bu baax boo ko xasee ba amee doo ziyaara ku du di waliyu bu du tijaan ndax koo xam ne boo jàngee jawharatul kamal fukki yoon ak ñaar mel ni da ngaa ziyaara yonent bi salaa sallam ca Medina wara te faa ngi toog ci sa biir néeg loolu ku ko am waroo xaaraani fenn dara ziyaara yonent bi ku ko am loo ziyaara jee ab yónn ab ab boo xam ne bokkul ak yow faf tariqa kon loolu nañ ci bàyyi xel adamu tarkil wirdi ku ko jàpp doo ko bàyyi ba ba ngay dee jàpp ko bàyyi ko lu dangereux la ku ko def rek danga nga alku àddina ak àllaaxira yàlla nañ ci yàlla musal Mawlana Cheikh naa Hadj Abdoulaye El Kabir El xalifa Cheikh Tidiane bu mag boobu waajuru sëriñ bi Mawlana Cheikh Ibrahim bu yéeme boobu moo wax bu am cër bu rëy boobu ci tariqa bi borom bu rëy boobu ci tariqa bi moo wax ne bind na téeréem bi ñuy wax euh, tambihu naas li tax mu bind ko mooy. jamono jooju dafa bëri woon ñuy dugg ci tariqa bi di ko bàyyi dem feneen am riir mu xew ci réew mi di fëkk nit ñi di leen jëlee ci tariqa bi leen yóbbu feneen moo tax moom fiir gum fiir ci tariqa bi tax mu bind téeréem bu yéeme boobu na ci nit ñi dellu jàng ko wax na ci affaire yi tarkul di lu yaatu tarku dafa fiir ci tariqa bi moo tax mu bind téere boobu luñ ci mën a yaatal malheureusement temps bi dafa xat bi ci topp mooy doo ko booleeg benn wirdo ci wirdoo gaay jamo am na nag ñuy wax jamoo léegi dafa xew ci senegaal ak àddina bi ñu bëri dañ lay wax ne la kaay te fekk kat ñoom beneen tariqa lañ bokk ne la waaye ñun dañuy joxe tijaan buñ la ko joxee du wér ma wax la ko fii coow li bëri na ci def nañ ci ay débat ci tele yi da ngay dégg ñuy wax loolu suñ sëriñ dafay joxe tariqa bi waaye tariqa bi mënta wéree lu may ci sënati Cheikh na Tijaan radiyallaahu anhu loolu tamit mat naa leeral Mawlana Cheikh Ibrahim def cee daf koo defoon combat wax na ko ci téere bi mu njëkk a bind muy euh, ruuxul adab ne wa yastaxilu jamuha bi uxra axsir bi qaa'ilin bihi fi luxra jomb na tariqa bi di ànd leneen kenn du ko booleek beneen wirdu ci wirdoo gaa yi bàyyi def koo olofal sax te man gisuma ko mu wolofal lu may ci yoon woowu daf ne euh, képp ñett yi ñett le ku ko ci def yow dog nga ci cheikhu ahmada te kon yow bon nga ñu jox la wirdo wa nga dem ko bàyyi walla nga jël wirdo weneen ci gaa yi yow yàqu nga bon nga ci mboolem yoon yaa ci fi fii ci àddina ci mboolem yoon ya bàyyi daf cee def olofal sax ngir bañ nit ñi euh, sàggane ko bokk na ci adamu mujalasatu mubghidi cheikh wattandiku di toog ak koo xam ne dafay xas cheikh wala mu bañ ko mën naa indi dog wóorut wa man yujalis mubida cheikhi halak wa dalla fi mahamihin wa fi halak adamul amri min makrillaahi cheikh na tijaan yi nee na lim ñi garantil yépp charte bi mooy ñàkk naagu ci pexeem yàlla bëggoon nañoo wax ci aadaab yi xuduur ak istixdaar ni mu amee solo cheikh Maulana Cheikh Ibrahim jàngal na ko ci ruux la dem mbokk yi jàng nañ ko jarul ñu ciy guddal mooy wastaxdiran na cheikh akal murabbi kazaka cheikhahu bi dooni ray bi kuy sikkar wirdo wi da ngaa war di teewlu sa sëriñ wala ngay teew teewlu cheikh na tijaan yi di teewlu yonent suratu yonent bi sallallahu alayhi wa loolu yi tamit ci la bokk tariqa bi mbokk yi maa ngi bëgg a daaneel euh, njëriñ yi samaraat yi nga xam ne mooy thème bi dëgg-dëgg tariqa bi dafay ñëw yéwénal àddina yéwénal individu yi yéwénal société yi faral nit ñi seeni bàkkaar yoo xam ne xamuñu woon fu ñuy tàqalikoo ak moom tàggal leen ak ay musiba ki balaa yoo xam ne nii bu dul woon tariqa bi xamuñ fu ñu jëm ak moom aadaat yu bon yi fi newoon wax naa ko léegi tux mi poon bi yépp tariqa bi moo ko fi wàññi waaye bu njëkk booy songi jigéen sax pon nga yóbbu ñu ne fóonal na ko yooyu yëpp tariqa bi moo ko fi jëlee dañ ko war di fàttali nit ñi nit ñi ñoo foog ne dafa xëy rek disparaître yooyu waaye tariqa bee ko fi jëlee jëlee fi sukuraat bu métti jëlee fi xàmbu yeeg dégg nga ko léegi sax borom xàmb yi ne nañ buñ sampee léegi cin du dox leeri tariqa bi moo tasaaroo gëndaloo ci réew mi moo tax léegi gisatuñ dara boo demee ci ab kat sax du la wax tus léegi ñooñ tariqa bi rek ñoo mën a wax dara mu wér ci yàlla ndax leeri tariqa bi moo gëndaloo lëndëm sori defar na diggante nit ñi boole leen uxuwal islaam yi ni mu ko dundalee kéemaan la fii ba Màkka foo dem ba Jakarta ba Indonésie fekk fa say mbokk yoo xam ne da nga tase ak ñoom ci géej wóodi fa ak zikru jumaa ngeen soppante te du ngeen bokk couleur du ngeen bokk làkk du ngeen bokk xeet demal Mauritanie demal Nigéria demal fu nekk nga gis ne foo dem am nga say mbokk yoo xam ne fa bi boole na la ak ñoom ngeen bokk lu ngeen mënta séddoo muy wadifa ak zikru jumaat kon da ngeen maslaa ndax ñu bokk ñu mënta séddoo mënuñoo tàggoo defar na ay góor yàlla yoo xam ne duñ jeex lahu sahbun ka aqmaarin zawu fatxin wa asraarin wa tamkiinin wa anwaarin fa kullun aynu ayaani jamono bu ne nag dalal ci alin xarasim Mouhamadul Machir subaa yi nga xam ne moo njëkk jël tariqa bi ci ayaan yi ci ba Cheikh na tijaan yi ka ko njëkk jël nag moom te siiwut mooy Mouhamed Ibn Achour as-Samghuni moo njëkk a jël tariqa bi si na cheikh waaye bokkut ci ulamaa yu mag yi ki ko njëkk a jël ci ulamaa yi Mouhamadul Mishri Subaa'i ñooñu ñëpp ka xaawi sabqi ahrazim wa najlil Mishri dal aalim ah fa laa laahin wala waani duñ kàngam yooyu nga defee ne jamono jooju rek la yam nga wàcc ñëw ci ñoom kën suus ñoom nadif yi ñoom ah, xaaj Xuseyn bin Ahmed al dégg nga ko demal ci Tamasini euh, demal ci euh, Ahmed Arabi ibnu Sayah ponkali euh, Buxaari yu tariqati xaalit seen tiis yi duñ jeex su ba ci Sidi Ahmed Sukayrij Ibrahima Rayaax yi Mahmoudou Tunusi ponkal yooyu Mawlaaya Mouhamad ibn Nasr ba ba ngay ñëwee ci ñoom bul sori sax ñëwal rek fii ci Maam Alaaji Abdoulaye mii ñëwal ci njabootam gi rawatina Mawlana Cheikh mii di wax naan radiallahu taala anhu naan wa hada abdu min adna mi man sax ci sa surga yi gën a ndaw laa bokk ma ne ah kon kan mooy seex na yi ku bàyyi di wax naan ko ci surga yi gën a tuuti laa bokk kooku euh, kenn xamut nu mu day ak mooy kan euh, kon Cheikh Hassan Deme ngi nii ba suba ba péncam yàlla tariqa bi du dëñ di former ay góor yoo xam ne nii kenn du gis ñu mel ni ñoom feneen ndax dafa nekk tariqa boo xam ne yonente ko garanti ne dafay continuer di joxe meññet di tëb bu nit ñi di defar nit ñi ba peccam yàlla te duumu wa tabqa fi duhurin kathiratin wa fi axiri azmani tati bi faydati dafay sax di tëbbe ba bu ci jamono mu feeñal faydu boo xam ne nii bu feeñee leer yi dafay gëndaloo àgg ci yàlla dafay yomb te loolu ñu ngi koy dund ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim fayda bi mooy garanti tariqa bi mooy sënët bi nga xam ne ci la mëdat nekk mëdët bi yegsi na muy Cheikh Mouhamadou Chafia kon dootuma waxati euh, maa ngi yemale foofu kàddu yi di ñaan yàlla euh, mu saxal guddi gi gannaaw bu mu ko nangoo tasa lañu cee ngërëmal corna nga xam ne mooy ngërëmal Baay di ngërëmal Cheikh Natiaan di ngërëmal Yonent bi di ngërëmal yàlla yàlla defar mbir yi yàlla dëgëral njabootu corna gi yàggal bés bi ci seen loxo di ko yokku ci seen loxo waxtu bu nekk def ko muy fajukaayu ajo wa in uridu ila al islaaha ma sataatu wa ma tawfiqi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.